aywa tey benn dëkk ñaari gaar lañu xëy ak suñu invité muy euh, Ousseynou Diouf nekk responsable euh, APR foofee ci diwaanu Thiès ñu ngi lay nuyu euh, Ousseynou. soxna Fatou maa ngi lay nuyu. et mm-hmm. puis leen nuyu ñi nga bokkal sa plateau yëpp di leen mm-hmm. remercier ci dalal bi ngeen ma dalal. Mm-hmm. ci seen émission RFM matin. très bien info yaay suñu gan Chérif mën nañu sóobu ci waxtaan bi sànq maa ngi koy wax la grande actualité mooy la tournée économique du président de la République dans la cité du rail. tournée euh, économique euh, officiellement loolu lañ wax Ousseynou mais ñu bëri doonoo jàpp ni njiitu réew mi day politique. ak campagne bu mu def déguisée en direction de la présidentielle même si waxagul. taxawaay bu mu ci am yéen ñi sax di responsable politique yi yéen a ngi rivaliser seen biir ci wàllu ay mobilisation est-ce que loolu du dem ba nëbbu xëy na solo sax ci wàllu koom gi nga xamante ni nee nañ moo ko tax a jóg. Euh, jërëjëf Chérif waaw xam nga président de la République à chaque fois buy déplacé wu c'est normal que ay partisans teeru ko tatagal ko rawatina bu fekkee dafa gëjoon Thiès pratiquement depuis 2014 comme li nu mel mu ñëwaat tey en 2023 2023 di ko fi defaat jaadu nañu teeru ko donc euh, l' aspect politique xëy na mënu cee ñàkk mais laspe aspect économique yaakaar naa moo ko tax a jug ndax Thiès bu politique bay ci ëpp de cee ñàkk wax dëgg fa yàlla mënu cee ñàkk mais l' aspect moo ko tax a ndax wax dëgg fa yàlla Thiès nekk na dëkk ba dëkk ba nga xam ne kuy génn dakaar foofu ngay jaar kuy dugg Dakar fii ngay jaar. biir Carrefour waaw biir Carrefour. dañ doon faral doon wax naan Thiès benn dëkk ñaari gaar mais léegi mun nañoo wax ne Thiès benn dëkk ñetti gaar te bu neex yàlla sax mun naa dem ba nekk. moom dee na te leen ko dekkal. loolu bokk na bokk na ci. gaar gaar gu saxaar gi dekkiwul moom noo nuñ ko mën a tuddee. soxna Fatou loolu loolu bokk na ci li tax ñëwam bi moo tax mu nekk ñëw bu am solo donc dañ ñun dañuy jàpp ne vraiment ñëw ñëwam bi ñëw la buy développé waat encore Thiès. buy permettre au Thiessois ñu am yaakaar ci suqali vraiment économique euh, économiquement Thiès nga xam ne demoon na ba tëju te xale yi doon faral di wax naan Thiès léegi dawal Jakarta moo fa am ak jaay kafe Touba ndax manqué woon na ay sociétés yu dox pour vraiment euh, recruter les jeunes ñu mën a liggéey. mais euh, monsieur Macky Sall def na ñaari mandat fukki at ak ñaar ci bopp réew mi. Mhm. bu dee bu problème yooyu. du waaw xam nga euh, mieux vaut tard que jamais la relance des chemins de fer ñun ñi nga xam ne dañoo dëkk Thiès dañ ko yàgg jooy non du chemin de fer que global mais yaa ngi wax chômage des jeunes emploi beeg yooyu foofu laay waxee. dans sa globalité ñëwam bi non seulement waxuma la chemin de fer rek mais le président de la république dina activer des leviers yi nga xam ne dina permettre Thiès tey doxaat du chemin de fer boo gisee sax j'insiste sur le chemin de fer parce que li mu mën a absorber pour les jeunes. amul beneen société bu ko fa mun a absorber mais vraiment dina am na ay pàcc am solo yi nga xam ne dina ko développer avec les acteurs de développement sur le tourisme sur la pêche ak d'autres acteurs d'autres d'autres dans d'autres domaines porteurs de croissance mais tey chemin d'affaires dafa nekk la nga xam ne daanaka mun nañ cee duut baaraam ci li nga xam ne tey teg na ko fa pour que yaakaar bi mën a suqalikuwaat foofu noonu au niveau de de mhm. Thiès. yaa yaa ngi koy wax euh, pardon Marcel parce que dafa ko tudd sànq euh, ñu ngi naan Thiès. ñu ngi koy wax ne liggéey amu fa ñenn sax dañuy tooñ ne ñu bu weesoo euh, jaay café ak dawal Jakarta amul lu bëri ci liggéey mu nekk ville Carrefour mais dañu gis comme ni ko Chérif waxee at yu ji yi quand jafe am na ci wàllu jeunesse bi lan ngeen di xaar ci ci ñëw président Macky Sall côté boobu. li ñuy xaar daanaka pratiquement ci ñoom boobu vraiment mu ubbi ay ay yaakaar euh, boo xoolee jiital jiital na ci politique am ci jamono yu néew xam-xam moo ni la formation parce que tëbuñu rek tëbul tëb rek ñëw relancer waat les chemins de fer parce que tey jii il faut que mu mun a offrir à la population thiessoise surtout à la jeunesse thiessoise tey ñi nga xam ne ñoo ngi fay dem ba am bac ñu mun a am des formation courtes et diplômantes mm-hmm. dans certains secteurs yi nga xam ne localement dina leen permettre ñu mun a insérer la vie professionnelle loolu moo tax tey jii ni mu sampoon fa lu mel ni ISAP bi nga xam ne dina yëngu ci wàllu les métiers di fer mm-hmm. l'agriculture et cetera donc mm-hmm. ISAP dina permettre aux jeunes Thiessois yi nga xam ne tey jii nii bëgg nañ liggéey dans les métiers du du rail ñu am une formation courte mais aussi diplômante pour ñu mun a insérer Euh, la vie active donc loolu dina nekk la nga xam ne aussi tamit njeexital la boo am solo au niveau de la jeunesse yaakaar naa. Mhm. léegi tamit euh, bu ñu ñëwee parce que y' a l' université ba Der Thiam on nous parle d' une inauguration université boo xamante ni gis nga ko depuis ba mu nekkee centre université régionale yàgg na mooy li ñu wax quoi des fois aussi président day dem rek xëy na pour euh, masquer les affaires mais mhm. inauguré université boo xamante ni existé nga depuis longtemps loolu ban sens la am. bon inauguré inauguration bi là il faut que ça ça pose l'acte symbolique parce que université bi wax dëgg fa yàlla effectivement yàgg nañ ko dégg mais lu ci bëri daf ci manqué woon les travaux dafa dafa dafa stagné woon mais actuellement on peut dire que ne vraiment tout est fait pour que les étudiants soient dans les conditions meilleures pour ñu mën a jàng donc mm-hmm. day jaadu aussi tamit donc parce que dañ doon faral doon wax naan université Thiès université Thiès y avait bu yàggul lañ ko jox tur Iba Der bon kilifa gu mel noonu ak dayo bi mu amoon vraiment day jaaru itam de manière symbolique ñu jox ko euh, ñu defal ko inauguration ba nga xam ne tey jii nii yaakaar na ay mbokkam hmm. ay xaritam ay am di jàmm ak askanu Sénégal lépp li nga xam ne président Iba Der Thiam liggéey na ko fi ñu daal ko koy euh, ñu yëkkati ko ba ci dayoom. lu tax Macky Sall ak euh, coalition mun a ñoo en tout cas gagné Thiès. ba mu ñëwee ba léegi aussi loolu constaté na ni moom. waaw loolu mun mënut a loolu loolu xëy na. Idrissa Seck ba mu ko gagné opposant alors ba mu ñëwee ci yenn il l'a perdu. loolu loolu bon vraiment nekk na ay jafe-jafe yi nga xam ne ñoon itam am nañ ci part de responsabilité sa il faut le dire ndax ñàkk déggoo bi nga xam ne amoon na ci ñun ci suñu biir te kooku président de la république yàgg nañu ko wax loolu il faut le reconnaître. c'est-à-dire c'est-à-dire que tey de l'APR de la coalition Benno Bokk Yaakaar à wax dëgg fa yàlla bu ñu waxee dëgg. déggoo ba ñu waroon déggoo pour ànd gagner les élections amu fa tey jii nii Idrissa Seck ñëwoon na renforcer le camp présidentiel mais lu ñëwoon boobu itam dafa am lu ciy sooxee ndax ñaari kilifa yi ñoo waxtaanee woon ca kaw mu amoon lu bëri la nga xam ne waroon nañ ko waxtaan à la base parce que les acteurs politiques ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf ñooñu ñooy dox ñoom ñooy wax ak nit te bu fekkee tey ñaari kilifa yi dañoo waxtaan te ñu nekk ci suuf déggoowuñu Euh, comme ni ñu koy waxee politique moom xeexum intérêt la ku ci nekk da ngay xool lay sa intérêt nga sàmm ko. kon Idrissa Seck apporté wu leen dara politiquement. du ne apporté wuñu dara ndax wax dëgg fa yàlla am na lu mu am. mais liggéey ba waroon pour que ñëwam ci biir Benno Bokk Yaakaar porter ses fruits wax dëgg fa yàlla. ku ko waroon def booba liggéey. kilifa yi am nañ ci responsabilité. Macky Sall ak Idrissa Seck am nañ ci responsabilité ndax man jàpp na ba ñu toggee waxtaan ñoom ñaar waroon nañoo itam seen njaboot. ndax boo xoolee élection locale yi passé y avait beaucoup de divisions au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar te wax dëgg fa yàlla bu ñu déggoo woon amul benn formation politique bu ñu waroon mën a mais législative ànd ngeen terewul ngeen ndelteelu législative ànd nañ mais comme ni ma la ko waxee aussi tamit y a beaucoup de yu nekk ci biir et beaucoup de sabotage ya nga xam ne pour de intérêts yi nga xam ne qui n'ont pas été affichés. bokk na ci lu tax ñu perte ces législatives moo tax ma ne liggéey ba ca waroon. à la base mais quel teg baaraam. xam nga au sein même au sein même boo bëggee ñu dégg ci biir. Mm-hmm. au sein même de la de la coalition Benno Bokk Yaakaar ak au bi même du parti dafa amoon ay jeux d'intérêt ya nga xam ne qui n'étaient pas du tout affichés ça il faut le reconnaître bu ñu demee ba ci biir. kilifa yi ne ànd nañu te acteurs politiques ya nekk ci suuf ànduñu pour des positionnements ak pour de pour des pour des intérêts comme je l'ai dit tey jii nii di gis benn responsable croiser les bras du ko wax loolu dafa am ci politique bu ñu wootee réunion day ñëw taxaw ne woy ànd naa ci nangam nangam mais en fait en réalité ci suuf day joxe ay consignes de vote pour d'autres partis wala pour d'autres coalitions. ñun loolu dund nañ ko xam nañ ko mu nekk ay sabotage yi nga xam ne bokk na ci lu xañ. vraiment la victoire lors des élections passées. foogoon na ne ak lépp loo mën ci def tamit c'est quasiment mission impossible parce que Thiès euh, ça a toujours été quand même un fief de l'opposition mhm. euh, quoi qu'on puisse dire donc euh, tey ban stratégie de plus ngeen mën a indaale peut-être ngir mën a fexe ba reconquérir euh, wàllu boobu ce sera quand même très difficile comme je disais Thiès moom yàgg nañ ko xamee fief de l'opposition quand même. il faut quand même reconnaître nga xam ne tey jii tey jii nii waroon nañu xam ne waroon nañ fa. liggéey liggéey bu am solo te defuñu ko ça il faut le répéter. parce que cette jeunesse là nekkuñu da nga xam ne ñu ci bëri dina ñëw ci ay meeting mais ils sont dans sociaux. Mm-hmm. wax dëgg fa yàlla euh, l' opposition vraiment daf ñu gagné woon ci ce côté là les réseaux sociaux ñun dañoo toppoon meeting yeeg yenn rassemblement yi ba fàttali primo votants et ce sont primo votants qui sont souvent influençables au niveau des réseaux sociaux mais loolu ñun jàngal nañ ci jàngal bu am solo ba nga xam ne yaakaar naa ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo woo leen waxtaan ak ñoom. Euh, vraiment jéem leen a convaincre ci ñu xam seen seen bëgg-bëgg mais itam ñu xam ci ñu xam seen avenir ci lan la et quest que actuellement Thiès va va leur offrir pour que ñu ñëw insérer dans les rangs de notre formation politique mais aussi dans les rangs de Benno Bokk Yaakaar. ndax yaakaar naa sous peu de temps avec euh, vraiment la nouvelle donne qui pose à Thiès parce que bu ñu seetloo dafa bëri woon ay mag ya nga xam ne doo mën a mënatuñu dara mais politique âge daf lay dab. bu la âge dabee day am yenn yu bëri dootoo ko mënati loolu sa yi nii. boo boo jëlee mais ñun fa gis ñuy politique yi suñu fa mag ah ñun fa. gis bëri na boo xoolee président de la république li ëppoon ci ñi mu doon collaborer dañooy dem ba dugg ci soixante quinze soixante soixante dix ans. mais ñi fa nekk nii président conseil départemental. mais récemment mais xam nga Sira Dia da xam nga loolu laa lay wax xam nga politique. stratégie la. xam Augustin Tine ñoo fa nekk. ñu mën a dugg dans les réseaux TikTok. ak Idrissa Seck yooyu mais man moo tax ma ne la euh, politique à un certain âge vraiment boo ko nangoo boo ko nangul day am yu bëri dootoo ko moytu il faut laisser la place à la jeunesse ndax ñoom ñoo mun a porter le combat bi nga xam ne président de la république soxla na ko donc moo tax ma ne avec cette nouvelle donne qui s'impose vraiment yaakaar nañu ne ñu récupérer pas mal de jeunes yi nga xam ne ki ne qui nous étaient qui ne nous ont pas été vraiment favorables lors des élections passées. Mm-hmm. alors jeunes yi pour récupérer leen il faut ñu régler le problème de de de l'emploi mu mel ni chomage endémique bi moom moo dem ba yóbbu jeunes yu bëri ñu dem ci Jakarta yi ak conséquences yi ci am yépp te Thiès ku ko wax wax les rails. tey Thiès ku ne xam na ni euh, bu ñu ko tuddee capital du rail c' parce que le rail a joué un rôle très important ci wàllu économie usine ba fa nekk di NSTS également relancé ko euh, ba deuxième phase bi ñu ngi koy xaar ak règlement définitif du problème entre l' et la NSTS ci ñaari fànn yooyu euh, fan ban combat ngeen war a ne pour que tey Thiès ci wàllu koom-koom mu suqalikuwaat par la NSTS et par la régie des chemins de fer Euh, foofu wax dëgg fa yàlla aussi tamit dañuy rek remercier waat bu baax euh, le président de la république parce que NSTS bu demee ba recommencer waat ses activités kooku président de la république dugal na ci xaalis bu bëri. Mm-hmm. parce que loolu moo taxoon depuis pas mal d'années NSTS mënu woon redémarrer ses activités tey alhamdulilah commencé na encore repro di defaat euh, liggéeyam comme nu mu waree jë commencé di recruter pas mal de Thiessois mais malheureusement effectivement liggéey bi moo ngi continuer di sooxe ba léegi parce entreprise bi fa mu bëgg a yegg dëgg-dëgg rythme de croisière am yeggagu fa. Mhm. bo kooku yaakaar naa incha allahu rabi comme président am na jéego bu ñu ci defoon bu ca bu ca yokkaatee yaakaar naa NSTS dina mun a yegg fa nga xam ne Thiès waaye ñëw ngi ko fay xaar. Mhm. mais surtout par rapport au, à la à la relance des activités des des chemins de fer moi qui suis fils de cheminot. Mhm. xam naa impact bi nga xam ne tey jii nii la relance des chemins de fer war na ko mën a jot foofu ci biir Thiès ndax bu njëkk ba tout étant jeune à partir de l'âge 5 ans 6 ans bien euh, un peu jëm vers 10 ans chemin de fer bu nit ñi doon wàcc day mel ni vraiment làmb bu tas. Mhm. mënuloo compter les employés yi fa nekkoon. ñu dem ba mu jéggi chemin de fer bu nit ñi wàcc tu peux compter ak sa baaraam ña fay dugg ak ña fay génn. mu nekkoon lu ñu naqari. mooy mu nekkoon itam la nga xam ne ñun Thiès yi ñoo ngi ko doon dund te xamoon nañ ne tant que chemin de fer relance wuñ ko li ñu bëgg ci biir Thiès économiquement pour mu développer. vraiment du mun a nekk ndax siiw naa benn reportage ba nga xam ne y avait une restauratrice moom nee ci jamonoy chemin de fer ba muy dox dëgg lu mu gàtt gàtt dina lekk lakk ñetti xar ci gaar bi elle au moins quinze employés te ki ci gënoon tuuti salaire c' était trente trente cinq mille kooku ci la tabax këram yoroon ci njabootam doon dimbala borom këram ak vraiment defar ci àddunaam tey bu ñu demee ba chemin de fer delluwaat di liggéeyaat waxuma li mu mën a def en terme de pour euh, les formations les les les les les les diplômés mais le petit commerce bi nga xam ne qui tournait autour des gares mais aussi euh, avec euh, les acteurs du commerce qui sont entre Dakar et Bamako vraiment li mu mënoon jur ci koom-koom te Thiessois war cee mën a jëriñu ndax man maa ngi fàttaliku bi ñu nekkee xale bu ndaw xaru tabaski yu bëri Mali la doon jógee ñëw di transit di jaar fii nii pour que vraiment Thiès mun cee mm, mun cee mën a gis boppam loolu nag Thiès commerce boobu noonu Thiès daf ko ngànkoon daf ko daf koy daf koy yenu woon ba pare ci Thiès la doon jugee di di gën di law ci yeneen dëkk yi nga xam ne ñoo ngi wër euh, la région de Thiès mu nekkoon mu am un vraiment lu ñu mun a wax lu jéggi dayoo donc loolu te jii nii bu bu déclaté yaakaar naa Thiès dina ci mën a gis boppam mais aussi la population thiessoise dina gën a mën a am yaakaar. concrètement quel est projet de l'État du Sénégal pour relancer euh, tey les chemins de fer lan lañ leen wax ne lii la président mébét pour Thiès euh, chemin de fer bi deqiwaat concrètement mais concrètement li muy mébét kañ wax nañ ko mooy la relance des chemins de fer parce que. en faisant quoi. actuellement vraiment boo xoolee sur le terrain ñoo ngi commencé di. defaraat euh, les ateliers yi nga xam ne ñoom ñoo war a ñoom ñoo war a démarrer waat pour permettre au chemin sur le corridor Dakar ko donc loolu concrètement acte la ba nga xam ne posé nañ ko nekkatul lu ñuy laam-laamee. Mhm. actuellement les pièces de rechange boo demee au niveau des chemins de fer ñoo ngi fa. Mhm. ouvrier ñoo ngi commencé waat activer wu. pour que mhm. vraiment les rames puissent redémarrer donc loolu yaakaar naa nekk loolu. lu ñuy laam-laamee du temps a xëy rek sotti. moo tax man la depuis loolu bi ñu ko waxee indi fi déclaré fi secrétaire d' état bu gis nga ko supprimé waat nañ ko indiwaat maintenant directeur général qu'on a reçu ici sax Malick Ndoye mhm. euh, mais délai yi gàtt na gàtt goo xamante ni gëmmu ni mën naa gaaw ngir sama defar ba muy Dakar Tambacounda dem ba ma ko wala Dakar Thiès dem Tivaouane ak yeneen dëkk yi nekk bi Sénégal sotti mhm. mais loolu mun na garab mun na mun effectivement mun na nekk parce que nekkul matériel ba nga xam ne dañ koy jënd. le matériel le matériel moo fi amul. le matériel existe non le rail est là. oui pour Dakar Thiès la il suffit il suffit tout simplement vraiment de le maintenir de le réhabiliter pour que ñu commencé waat di ko mën a exploiter. Mhm. le matériel roulant existe. pièces de rechange yi ci yi ñu soxla woon moo nekkoon ay pièces yu jafe mais itam cher. Mhm. tey état du Sénégal fexe na ba. Ah, am ko non seulement waxuma la non seulement. pièce de locomotive jamono yi. nga xam ne ñun. poli euh, les chemins de fer du Sénégal soxla na ko mais itam les chemins de fer du Mali. Mm-hmm. yëpp état du Sénégal dafa boole yëpp jënd ko. Mm-hmm. actuellement ñoo ngi jublu ci réfectionner ces mm. machine pour que ñu mën a commencer waat di liggéey liggéey bi mais nag li ci am solo moom mooy. dans un premier temps xooluñu mat un matériel qui est extraordinaire mais l' essentiel est que les chemins de fer puissent encore redémarrer ses activités pour que l'espoir soit permis ainsi de suite je pense que si la gestion est bonne sous peu de temps incha allah rabi xëy na ñu am des trains de dernière génération commentaire incha allah Chérif merci euh, sëñ bi Diouf euh, bu ma dégloo ngay wax dafa mel ni Thiès ville kese ngay wax te région de Thiès tey ku ko xam xam ne bëri na ay meññeef. dafa mhm. bëri na mbayum dër am na phosphate am na engrais am na lépp. Mhm. donc ndax yaakaaroon ne tey jot na ngeen sukkandiku si yeneen gox yooyu nga développer la ville de Thiès bañ a weeru kese. ci li nga xamante ne mooy chemin de fer bi. te bañ a fàtte itam cette population. parce que mhm. souvent da ngay gis ñu mel ni Mboro et environ. di ñaawlu li nga xamante ne am na fa en termes de richesse. mais lu ëpp ci population bi gisuñ ci seen bopp. xam nga tout à l'heure da bi may commencé samay may commencé samay propos maa ngi ne le conseil des ministres décentralisé mm-hmm. est l'occasion pour le président de la République mais aussi pour les acteurs de développement mm-hmm. moo tax bi ma Chérif di tooñ léegi mën na ko xëy na mbirum politique dina ci am mais li ci ëpp mbirum économie la boo mm-hmm. xoolee cinquante pour cent des ressources nga xam ne tey Sénégalais yi ñoo ngi koy jëriñoo ça provient de la région de Thiès notamment entre Mbour Kayar Mboro Mboro Joal ainsi de suite. donc loolu itam président de la République dina ci profité waxtaan ak les ces acteurs yi nga xam ne qui sont dans ces filières. ñu xool jafe-jafe yi ñu am. notamment avec la la raréfaction des produits halieutiques mais itam ñu jàppale leen ci sur des périodes de dernière génération ndax ces périodes de fortune yi nga xam ne ñoom lañ gis. ñu ci ëpp dafay jur ay accident de mer. mais boo xoolee aussi tamit Thiès dafa bokk li ñuy wax dans le bassin arachidier Thiès. Diourbel ba kaw hmm. la agriculture daf fa dox tey jii nii le président de la république waa aussi profiter de cette occasion pour pour pour discuter avec les acteurs du secteur agricole hmm, notamment jox fan yi bu yàggul gis ngeen joxe na fi ay machine agricoles hmm. pour développer vraiment ce secteur et je pense bien que Thiès en a belle loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne dina ci waxtaan ak ñoom pour que ñu leen di jàppale pour que Thiès dans son entière globalité vraiment ñu mën a gis bien yaa ngi yaa ngi wax ne frustration peut-être am na man noonu laa comprendre. Mhm. ci responsable politique yi parce que nee nga am na ñoo xam ne euh, li xale yi di wax affiché indo doxal ko booy tax dañu naan ànd nañ ci bu ñu dogee ci suuf peut-être wax ñeneen joxe ay consignes de vote feneen. mais mhm. frustration bi aussi dañ ko nemmeeku du côté des populations. Mhm. Euh, euh, Thiès Idrissa Seck il a été sanctionné ci benn wàll parce que dañ doon wax ne quand il était maire il n'était pas proche seen côté sax ñenn mais ñun les responsables ñenn ci responsables en tout cas ne sont pas accessibles lu ñu leen gis lu ko mooy ci plateau yi wala ñu soxla euh, di dagaan seen baat tax ñuy topp seen ginnaaw est-ce que proximité du war diggante responsable ak euh, responsable politique ak ñi mu dëkkal ndax am na jërëjëf soxna Fati xam nga boo boo xoolee li tax mu ne la y a une nouvelle donne qui s'impose sur le plan politique au niveau de Thiès mm-hmm. xëy na duma fi nekk kenn itam di bu waxee da nga xam ne damay sànni xeer suma naataango politique yi. Hmm. mais non pas sànni xeer mais wax li am quoi non non effectivement il faut il faut reconnaître que la réalité loolu la bon sa Seck effectivement sunu c'est un leader politique qui a qui a fait son temps. wax dëgg fa yàlla li nga wax tamit dëgg la Thiessois yi gëjoon nañ koo gis sur le terrain mu saafoonteeg ñoom mais itam la prise en compte la prise en charge des préoccupations des Thiessois xam nga man tey jii nii bi ñu demee ba ne Idrissa Seck moo ngi ànd ak son excellence président de la République ci wàllu politique man damaa tàccu te bu may tàccu yenn am na su ma yenn naataango politiciens yi nga xam ne dañoo bokk APR kontaan nañu ci woon ndax jàppoon nañ ne xëy na xëy na ñoom sur le plan politique fa ñu bëggoon yegg duñ fa yegg mais man dama leen bon ñun bu ñuy politique waa Kànnaa war nañoo mën a xool intérêt population bi tey bàyyi di jiital suñu intérêt bopp man li tax ma tàccoon ndax damaa jàppoon ne Idrissa Seck kàngamu politique bu day ni moom yaakaar naa bu jegee soon excellence président de la république dina ko xelal ci li nga xam ne mooy intérêt Thiessois vraiment l'oreille attentive bi nga xam Thiessois war nañ ko mun a am ci Idriss Seck bokkut ak Ousseynou Diouf. mais est-ce que toor bi yëpp. ma jël loolu moo taxoon ma tàccu. pourquoi dama ne lan moo tax ngeen bëgg a jël toor bi yëpp teg ko ci Idriss Seck alors que yéen tamit la ngeen fi yor ci ay responsable politique yu am ay ndomba tànk. muy député directeur ah ak yeneen élus yoo xamante ne quand même yéen it da ngeen li ngeen xaar ci Idriss Seck pourquoi vous ne le faites xam nga moo tax ma ne Idriss Seck fa toll ci dayo politique y' a pas mal de politiciens yi nga xam ne ñoo ngi cee tolluñu fa tey jàpp naa ne Idrissa Seck buy waxtaan ak président Macky Sall. président Idrissa Seck mais de la république. buy waxtaan moo tax mu déglu ko par rapport aux intérêts des Thiessois. Mm-hmm. man looloo taxoon man ma d' ci mu ñëw ànd ak te loolu itam wax dëgg fa yàlla pour dire la vérité. ñun am nañ ci ndam bu rëy parce que bokkuma sax sur le plan économique mais yenn problème ya nekk ci biir comme lu mel ni la forêt classée de Mbourkat président Idrissa dox na ci dox bu am solo mm-hmm. ba nga xam ne tey jii nii boo duggee foofu population ya fa nekkoon ak problème yooyu ñoo amoon yëg ngeen la fa xewoon ay kër yu ñu doon mm-hmm. Mm-hmm. na ko lii nañ ko saafara te loolu na ci li ñu saafara donc jàpp naa ne li ci des nag côté politique loolu moom ay xiiroo ngaayoo la nga xiiroo la ya nga xam ne munta ñàkk kooku moom je pense que ça c'est des ça c'est pas important li ëppoon solo moom mooy Thiessois yi gis seen bopp. ci ànd sa Seck ak Macky Sall. dernière question. Diouf euh, gis nañ ni euh, bon Chérif mi ngi koy wax sànq. ni euh, yëf yi c'est vrai tournée économique la waaye politique rax na ci. mais dañoo seetlu ni jamono yi da ngeen am habitude di organiser ay méga meeting di dajale ay nit ñu bari mais loolu dafa mel ni c'est uniquement pour légitimer un troisième mandat ba ngeen tuddee ko deuxième quinquennat <laughs> maintenant on parle plus de troisième mandat il parle de mais Diaw xam nga politique moom hmm. rapport de force bi te wax dëgg fa yàlla politique dox ak wax la tey boo toogee pendant un certain temps kenn gisu la kenn déggu la wanewuloo sa sa force de mobilisation wanewuloo itam l'animation politique comme je peux le la majeure partie des militants dañuy jàpp ne ñii ñoo ngi dellu ginnaaw ñoo ngi régressé de l'autre côté ñooñu ñoo ngay évoluer. waaw ah, mais dafa mel ni sax yéen ñooñu ngeen di topp. parce que ñooñu depuis bi ñu defee seen meeting Kër Massar ba léegi yéen loolu rek ngeen jàpp mobilisation mobilisation. non topp ñu leen ñun yàgg dañoo def suñuy meeting. mais nag fi ñu toll itam. di fay même ñii ñu toll itam. ñooy accueil ñii accueil président la jox paas dana la jox ay t-shirt yoo xamante ne du seen coobare leen fa ñëwee yéen leen di mobiliser. non non non actuellement wax dëgg fa yàlla man de xaw ma ñeneen ñuy doxale mais je sais que ñun ñu nekk nit ñi ñëw c'est des militants qui sont convaincus xëy na nag dëgg la politicien dina def yëfu politique génn ay tiset ci boo ko mënee. defal ay pancarte ak yooyu mais comme ni Diaw wax tey nag dafa jaaru actuellement wax dëgg fa yàlla mais itam xam nga am na benn kilifa diina bu doon wax naan bu la nit màttee yaakaar naa bu bu ñëwaatee bëggaat laa mat da nga war ngaa mën a siiñ say bañ ba mu xam ne am nga ay bañ. Hmm. yaakaar naa nag c'est cette réponse qu'on doit apporter à l'autre côté pour leur montrer que am nañ ay bëñ ndax nag ngeen ñenn ñi dañuy taxaw yaakaar ni ñoom rek ñoom ñoo am force de mobilisation ñoom rek ñoom war a mën a yëngal dëkk bi xëy na dëgg la dañoo woote jàmm moo tax bëgguñu leen fekk si yenn yi waaye nag am nañu ay bëñ ndax mm. ko xam te yaakaar naa li ñu gis Pikine bërki Dembo Ndiaye c'est une alerte te yaakaar naa ngoon bu ñu xoolee Thiès moo ko na ah, moo tax taay loolu ngeen jël <laughs> Ah bu ngoonee nga xool Thiès incha ah, allah dafa ngeen di wane sëñ bi Diouf balaa Fatou di di di jeexal. Euh, booba léegi ñu ngi wax ci raay raay tamit euh, Malick du ma dina confirmer euh, mu nekkoon AS club bu am solo ci football bu Sénégal. ci ci fan yu bëri également. Mm-hmm. lan lañ mën a xaar donc lan lañ mën a xaar ci les responsables. Mm-hmm. ñu yëngu ci wàllu politique surtout. ngir suqaliwaat gox bi euh, ci wàllu sport am ngeen ay joyaux lu mel ni stade Lat Dior. Mhm. mais xëy ñu ngi leen di. xaar ci Soumaré aussi defaraat nañ ko mais on attend l'hippodrome aussi. Euh, Seneps pour ñu def euh, liggéey bu mucc ay mais lan lañ mën a xaar pour vraiment ngeen amul club fanion boo xam ne. Mhm. dina mën a rivaliser ak yeneen équipe yi fi nekk. vrai club de c'est xam nga Thiès bu njëkk ba bu ñu ko doon wax le club mythique ba fa amul moo lool le le le rail. mais mhm. malheureusement bi chemin de fer. deewee dafa rayaale club bi donc acteur ya fa nekkoon acteur sportif ñoo fa nekkoon doon góorgóorlu man mi di wax ak yow de 2012 si je ne me trompe pas jusqu'à 2015 j'étais le président du Rail Basket li taxoon mu duggoon ci parce que xamoon naa ne tey jii ni équipe bi toll na ci jafe-jafe yi nga xam ne bu fa bu ko doomu dëkk bi jéemul gàttanu yaakaar naa fa lay jaaree tas c'était des moments vraiment durs parce que sport dafa métti. Mm. ak li mu laaj ci xaalis yëpp salaire mënu ko attan. Mm-hmm. il faut que tey société yu mel ni chemin de fer ak yeneen yeneen yu mel du dox pour que ñu mën a jàppale le sport. Mm-hmm. donc euh, damay ñëwaat ci question wu Chérif bi sànq li mu doon wax naan. Mm-hmm. Euh, chemin de fer lan la war a mën a suqali tax man fàttoo naa sax l' aspect sportif. tey jii nii chemin de fer bu doxaatee. je pense que l'USRA encore ba renaître de ses cendres ndax. dem nañ ba tey jii nii daanaka pratiquement le rail n'existe plus le club du rail n'existe mhm. équipe ba fa nekk mooy le Ceneps excellence mhm. mais qui traverse aussi tamit des moments difficiles ndax tubaab ya fa nekkoon dañoo am jafe-jafe yi yi ñu signé mhm. dañoo am jafe-jafe ak gestionnaire équipe ba tey jàpp nañ ni yàppaa a pas un club mythique à Thiès donc insha allahu rabi ñun jàpp nañ ni ah le rail bu dekkiwaatee biir Thiès. très bien vraiment l'espoir. li ngeen mooy Thiès FC soutenu par le rail. voilà moo moo moo gën la léegi Thiès FC par exemple. soutenu par le rail ñoom ñëpp a yam léegi dafa xew quoi mooy football le rail ay Sonacos ay Port ñun on ne peut pas enlever le rail dans notre vie. boo gisee li tax relance bi vraiment mu soxal ñu. Mhm. Euh, dëkk Thiès xam nañ ne d'habitude. chaque matin ak chaque soir am na benn sirène bu doon bu doon bu doon corné. wallaay loolu day def dafa des suñu bopp yi dafa dafa dafa mel ni. sirène ba léegi stade la Dior la. waaw waaw sirène ba léegi ci stade moo tax ñu sirène donc donc le rail. mënuñu ko génnee dans la vie des Thiessois donc la relance des chemins de fer. Mm. waaye dina déclare le club du rail te jàpp naa ne le club du rail bu doxaatee. incha allah le sport. jërëjëf jërëjëf am na solo jërëjëf jërëjëf jërëjëf Thiès laa doon xëyee te Ndakaaru maa leen doon jiitu. waaw voilà très bien bi laa doon jël. jërëjëf léegi mooy loolu. jërëjëf merci beaucoup sëñ Ousseynou Diouf euh, nga nekkoon sunu invité euh, nekk responsable euh, politique APR fële ca diwaanu cees kaay nuyu ñu waa Rue Sans Soleil ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup euh, Ousseynou moom la ñu doon dalal léegi léegi ñu dem ci euh, ñaari yéenekaay Groupe média Médias muy l'Observateur ak Record